acteurs <laughs> yi waaw safoon na nag. man moom damay safar mu saf saaf te tey dama jàppul a ah bon waaw tey moom j'étais dama dama a ñëw ak bi moo non non non dama ñëw je jeûne pas finalement je jeûne pas je préfère donner euh, je mange pas mais toute une journée je mange pas mais je jeûne pas je préfère joxe ndogu. ah d'accord. à sincère écoute voilà. l'islam may na la ko oustaz waxoon na fi mën nga ah, bañ a wóor. Euh, je travaille ah. donc euh, je surveille ma glycémie puis voilà j'offre. boo boo mën nga jox ay miskin. <laughs> ndogu xaw ay faxiir eh, ci ci li nga waxoon. nga nga leeral oustaz ma bàyyi la nga leeral. dama ni la. <laughs> alxuraan dafa in kuntum ala safarin wa in kuntum aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar bu fekkente ne da ne ci voyage. voyage tey bu njëkk ba gilee moo amoon mhm. wala décalage Sénégal ak Amérique xam nga boo départ woon Sénégal dem Amérique mhm. mën ngaa riir dootoo xam sa heure koor yàlla ni la teggil waaye bu koor passé na nga ko fay waxuma la nag damaa fatigué nii rek du si si sa décision personnelle comme moom ni mu ko jëlee déedéet day fekk médecin d'accord bi lay consulter moo lay wax ni mënoo woor taragal ci yàlla rek nag waaye nga nga nga arrosé benn tool wala nga jukki ñaari baar gi ni oh je suis fatigué donne-moi un peu l'eau <laughs> da ngay fay ñaari weer yu saf-saf d'accord leer na mais le ramadan c'est pas forcé am na am na <laughs> mais c'est de l'hypoglycémie oh. yow wooru xëdduloo nga bëgg a ñëw enchaîner woor après dem defi sport mais da ngay dee si le dafa metti il faut il faut soo wooree ngay jaay jom am hypertension artérielle wala am kii mais da ngay faatu <laughs> c'est vrai merci d'être venu Leila euh, dinañu amaat euh, sûrement occasion dalal ko ci suñu yeneen i euh, édition pour pour weeru koor bi déwén incha allah comme chaque année di nga fi teewaat chaque année daaw rek laa ñëwoon. Uh-huh. chaque année amul benn problème. donc pour daaneel mooy le groupe WhatsApp qui est le groupe de l'amitié on organise des soirées. on organise des sorties. <laughs> je les fais découvrir le Sénégal est ce que xam nga am na ñoo xam ne Dakar rek la ñu yem. c'est vrai xamuñu Saly xamuñu Kébémer xamuñu Kédougou. dëgg la dinañ bouger sax. dëgg la je connais des gens ñoo xam ne Médina la ñuy ju yaroo. Mhm. juddee fa. Mhm. faatoo fa mhm. xamuñu sa Rufisque. donc avec ça on les sort on les éduque on les forme. voilà donc moi je suis moderne maa ngi si beneen dimension. donc su ko defee gars yi après plus tard la ñuy comprendre gis nga rajo yi man j'étais la première femme à créer une station de radio. donc en quatre-vingt-dix-huit d'accord ah, ñëw ndànk-ndànk au départ je crée euh, j'ai mis un vocal les gens ne comprenaient bëgg a xaalis ah maintenant tout le monde met son cerveau ils comprennent toujours a un décalage de vingt ans damay rawee de mais on a capacité de de comprendre les réactions négatives donc de de supporter euh, les critiques les suggestions les supports parce que parce que si niveau boobu la ñu toll quoi. donc on laisse le chien à bois et la et la caravane passe donc il faut 10 000 francs pour s'inscrire dans mon groupe. à Bakotan et c'est le d'accord ah oui. xaw la ñu si critiqué yéen ñi ñaan di ak soxor. ah oui ndey man de maa groupe bi wax dëgg yàlla. yéen ñi nag dañoo ñaan dañoo mm. man nag dañ may bàyyi tranquille uh-huh. ma créé sama rajo créé sama groupe. créer sama télévision digitale def lu ma neex. nga def lu la saf daal lu ma sentir. voilà c'est important participer samay élection dem si <laughs> ni nga koy waxatee benn groupe opposition ma ki Sall. intéressant mu ngoog ñu koy remercier bu baax a baax groupe boobu sax waa régie depuis sànq ñu ngi may def signe di ma pour ma rappeler leen numéro bi euh, muy MD ak euh, Leyti dinañ dinañ dinañ ci bokk incha allah Fatou Abdou maa ngi lay remercier yow itam. maa ngi lay remercier bu baax a di remercier également la Euh, vraiment relax et puis euh, kontaan nañu ci daal sur le plateau. Mm-hmm. remercier également ki nga xam ne moom moo jaar ci tenue bi. Euh, Khalifa Mbergane li fa couture numéro de téléphone am 77 442 29 16 maa ngi koy remercier remercier également tous les téléspectateurs de la Sen TV Khady. ok Ndeye Met merci. merci beaucoup tamit bu baax a baax Ndella qui est après tout une que. am na esprit de créativité euh, quoi qu'on puisse dire donc euh, c'est vrai que créer groupe WhatsApp rek euh, ba pare daal di ci def business loolu ñu bëri daawuñu ko donc seen oto ci loolu tamit vraiment ma loolu loolu loolu loolu macha allah war na inspirer aussi tamit jeunes yi nga xam ne nii ñi ngi tout le temps ci réseaux sociaux yi te mën nañ ci am xaalis mm-hmm. donc euh, jàpp naa ne loolu lu baax la mm-hmm. donc euh, di jaajëfal ñëpp di jaajëfal plateau bi yëpp jaajëfal tey nag ki ma solal muy Bamba Sow design prestige moo jaar fii ci mbubb bi wax dëgg yàlla mi ngi ci au 77 518 63 79 mi ngi ci Padois Buldeuse euh, numéro H5 côté Nabil Choucair bijou yi tamit euh, ki ma ko jox mooy Sidi Ndiaye nekk Pikine euh, marché Zing ci centre commercial Nindi moom mi ngi nekk ci 58 425 42 91 ma maleen di remercier bu baax a baax. en tout cas sañse bi jekk na. merci beaucoup Fatima merci à demain. Merci mhm. beaucoup et profiter également remercier Serigne Modou Lambaye Couture Cité Fadia moom nag tey moo jaar ci ñaw bi macha allah il est au 117 339 30 25 mais également euh, remercier bu baax a baax ki jaar ci tissu bi aussi euh, parce que bu la ñuy defaree am na ñeneen ñoo xamante ne également dañuy taxaw muy Babacar Seck nekk fële ca marché Zang euh, di chez Abdou Gueye moom tam moo jaar ci tissu bi. jekk na également macha allah na fi merci beaucoup euh, jox dig daje téléspectateurs yi suba incha allah remercier maîtrise couture bu baax moom ma ñëwal robe rafet bi xam naa surtout information yi di ngeen ci sama réseaux sociaux yi incha allah. incha allah oustaz ba suba incha allah. waaw ba suba xanaa di jaajëfal bërki démb damay génn ci mbeddu Fass comme man yëmbal laa dëkk benn waay arrêté ma ma taxaw mu ne ma oustaz man de altine dama laa bëgg a solal grand plateau ma ne ko amul benn problème ndeysaan te amul sama mesure amul dara xëy gis na sama taxawaay rek daal di ma ñëwal lu rafet lii ne ma def naa ko addiyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wax fay couture couture la ñuy wax mhm. fay couture couture couture tabaarakallaahu fay moomu numéro mooy 77 665 dama sonn ci ñoom 665 68 34 77 665 68 34 mu ngi nekk ci loolu baaragay tabax lu mu tuddati monsieur maire te te te maam cantine bari yi nu ko tubaab di waxee foofu rek centre commercial bi uh-huh. monsieur le maire Bara Gaye sama xarit tabax boo nekkee boo demee ca kaw. moom fa la yor place di 77 665 68 34 kontaan naa bu baax a baax fay ko téye <laughs> remercier sa sa invité également Mouhamed merci. émission bi dafa neex ndax sama yaay Ndella Madior ni mu développé ci li nga xam ne daanaka. Euh, umpoon na ci bopp ndaw ñi ak ñi nga xam ni ñoo ko doon critiqué waxtaan bi leer na naññ ñu ngi lay ñaanal tawféex di ñaanal ñi nekk ci plateau bi ñëpp oustaz yow tamit maa ngi lay ziar bu baax groupe bi moom xam naa damay bàyyi ba ci kanam rek. ma ne une étoile est man mii. seetaan keroog jooy TFM. dëgg mu ni une étoile ma ne une étoile est née. dafa nag aywa mu gën a jëm ci kaw nag gën maa ngi ziaraat bu baax a baax ñi nga xam ñoo toog seen kër di ma seetaan di ci jiital suma papa Cheikh Alla ak suma yaay Adja Mbose di leen ñaanal tawféex bu baax a baax ak waa kër euh, Sali Xaar yi nga xam ne mooy Oumou Sali ñoo toog ca kër di ma seetaan ak sama group groupe yëpp di euh, jox ñëpp rendez-vous rek incha allah vendredi ca Thiès Euh, sama yaay ji nga xam ne moo di faatu di sët ci Cheikh de Calaw benn mbokkam mooy sargal maamam ca Thiès muy As Biram Faye ànd kook As le grand communicateur ma war koo taxawee muy le 15 di euh, Thiès. Mhm. maa ngi jox ñëpp rendez-vous mhm. di ñaanal ngi toog ba Suisse di ma seetaan. Mhm. ak kullu kuy sama soppe rek maam Jaara Diouf ba ca New York ak njabootam. am na solo képp koo xam ne yaa ngi toog di bëggee Mouhamed rek Mouhamed mi ngi lay wax ni kontaan na. am na solo merci beaucoup di remercier également ñi mu àndaloon nekk de l'autre côté euh, remercier Mouhamed on se donne rendez-vous demain. demain waaw incha allah ñu euh, ñëwaat comme ça joxe ci euh, xéwal li comme ni ñu koy defee chaque soir donc man maa ngi remercier waa Pot and donc ñoom ñooy l'élégance sur mesure donc à chaque fois ñoom ñooy génn ci tenue yi may sal donc ñoom ñi ngi ci 77 255 77 wala 660 13 27. maa ngi euh, nuyu itam euh, parce que dama jot benn message euh, bu may wax que monsieur le maire de Fimela Karim Sène ah donc je viens son son message mu naan ma je beaucoup monsieur le maire maa ngi lay nuyu itam bu baax a baax a baax. waaw. Mhm. Mhm. ndax moo ma proposé pour ma gérer la commission. technologie de l'information et de la communication. léegi laa jot message am. voilà monsieur nuyu di nuyu itam. merci beaucoup suñuy partenaire moom. suñu partenaire duñu leen fàtte. parce que ñoom euh, itam euh, ñoo ñuy permettre ñuy GP tous les soirs. ah donc bokk na ci waa Soboa ñoom ñuy andi euh, boisson Wod Cola Vimto. ah donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax bijouterie La Solution. ñoom itamit ñu ngi leen di remercier Ecobank itam merci beaucoup waa Free Money ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax les dano itam merci beaucoup également euh, au Casamance itam euh, ñu ngi leen di remercier bu baax a baax xam naa demain dinañ ci ñëw plus amplement Euh, comme que sànq def nañu benn tour donc demain incha allah ñu ñëw ci et puis euh, gën a joxe ci xéwal yi xari colonel ce sera donc demain incha allah jaajëfal suñu invité euh, jaajëfal ñëpp ñi toogoon ci plateau bi doon ñu gunge depuis tout à leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne da ngeen dagg seen yitte yëpp doon ñu seetaan émission bi comme noo leen ko xamee jeex na waaye man itam may remercier ki nga xamante ne depuis le début moom moo may accompagner di ma solal tous les jours mu di Pape comme ni ñu koy woowee nekk fële ca ci ginnaaw station Shell bi